mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen ànd ak ñun ci rajo Rewmi FM di nuyu mbokk auditeur yeeg ñi nga xam ni ñoom ñooy safo dimanche bu jot rekk li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi te nag ñu ngi fii am gan ki nga xam ne nag moom moo di Adja Ndeye Samb Laye nekk bàjjanu gox ca diwaan Yoff amoon nañ yéene itam ànd ak ki nga xam ni moom moo di euh, Mohamed Gueye nekk président réseau OCB yu district yu nekk ci biir euh, district nord moom xëy na ndog-ndog moom moo tax ba. Euh, mu mudut eh, ñëw ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci émission bi dafa am ab dese rek waaye ñu ngi fiy dalal ki nga xam ni moom moo di Adja Ndeye Samb Laye nekk bajanu gox ca diwaanu Yoff soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi asalaamaaleykum aouzu billahi mina sheytaan rajim mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ñu santee yàlla julli si sangu sang yi sallallahu alayhi wa mhm. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di leen baalu aax di leen baal aax mhm. di jéggalu bu baax si kàddu yu may yëkkati mhm. di jël nuyoo bu tedd di ko teg si sunu loxo sang Alassane waaye Ablaye yàlla na fi yàgg lool Alassane te wér nuyoo bi mu tekk si mbooleem xalifa généraux yi. Mhm. ak mbooleem kuy nit di nekk nitu mhm. aada. Mhm. mu lay jox nuyoo bi. mu nekkoon lu am solo xam nga ni semaine bi ab tiis euh, lañ ci amoon ki nga xam ne moom moo di génn àdduna Serigne Pape Malick ki nga xam ne nag moom moo di xalif général bu ca Thiénaba ca kenn Ahmad Tidiane Seck. alors tey yan kàddu nga mën a tey fësal. ci euh, nitu diine yi nga xam ne tey ñoom ñoo dëddu àdduna tey. dañuy santaat yàlla tabaaraka wa taala mi nga xamante ne boole nañu si niti diine yooyu ñuy sant bu baax di jaale ndek mbooleem koo xamante ne yaa ngi si àdduna mm-hmm. te nekk si li nga xamante ne lu mel ni ñoom fi ñu nekk la mm-hmm. même ñi bokk si diine ji dañuy bokk si ñi ñuy jaale parce que àdduna gépp ak perte dañuy wax na kilifa bu génnee àdduna kàggu la bu tàkk mm-hmm. kon yàlla dolli leen yërmande mhm. wàcc yërmande si seen kaw mhm. lépp loo xamante ne ñaan nañ ko si yoom te ñaakaaroon nañ ko si ñoom mhm. yal yàlla mottali ñu seen yéen si yéeneem si ñun ba nga yegg fi nga xamante ne fala suuf oyof si seen kaw lool bàmmeel leer si seen biir lool nooy nepp si ñoom lépp yàlla la yal nañ si defal li nga xamante ne loolu lañ leen yéene yal leen fekk fi ñu tëdd kilifa gu génn nag kàggu gu tàkk la rek dafay am fa manqué bu baax a baax te yal na yàlla dolli ñu uh-huh. fi ñu ñu féete woon uh-huh. mu nekkoon lu am solo ci sama kàddu rek ak ci uh-huh. turu ki nga xam ni moom moo di président Mbagnick Diop nekk président groupe promo consulting di feddaliwaat njaalam ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di uh, famille Sidi Hadji Malick ak ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Thiénaba Cekkeen donc uh, daf ñuy may rek ñu daal di xuus ci waxtaan bi tey ñëpp xam nga ni gox bi tey ginnaaw bon ci mbas bi daanoo tey mi ngi ciy joué ab rôle bu am solo ni tey li nga xam xam ne moom moo jëm ci xayma bi mhm. mi ngi mel ni euh, mille cent soixante dix neuf tests leen amal tey mhm. li nga xam ne moom moo jëm ci cent vingt sept yi ñoo ñëw positif mhm. cent quatre am ñaar yoo xam ne nag dañ ko jéggaane ñoom ñoo ko indi vingt et un cas communautaire ci diggante Rufisque Mbao Géejawaay Kaolack Thiès ak euh, li nga xam ni moo di bopp Mbour Padoua Cyprès Yoff Kaffrine Diourbel Bignona Touba ñoom am nañu trente six personnes yoo xam ne nag ñoom faj nañ leen ba ñu wér am nañ ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci ñetti dese mu ñëw toftalu ci téeméer ak ñaar yi nga xam ni mm-hmm. am nañ ko mm-hmm. mu mel nii li nga xam ne moom moo jëm ci jàngoroy coronavirus bi mm-hmm. mi ngi suñu réew di fi lëmbe ban commentaire ngay def ci euh, point du jour bu tey bi dañuy dolli santaat yàlla ni ma tàmbalee woon rek ndax ku koy nettali yaa fekk am na xam ne gëm nañ am na ñoo xam ne gëmuñu waaye ku koy nettali rek fekke nga te ki fekk moo mën a wax li xew. Mhm. te soo seetee li xew tey par rapport ak li daan xew man damay wax ne ñun war nañ delluwaat changé waat suñuy doxalin. comportement bi bu baax a baax a baax a baax. Mhm. tant que ñun ñi nekk ci communauté bi changé wuñu comportement yi. Mm affaire bi dafay gën a doy waa bon ñun ñoo war a am changement bu am solo soppiwaat bu baax jikko yi soppiwaat bu baax ne li ñëw mbir yàlla la ñu tegkat si loxo yàlla te jëfe santaane li ñu sante buñ ko defee rek yàlla mën nañu si def buñ demee ba yegg téeméer ak lu teg ëpp na kon mel na ni mbir mi ëpp na ëpp na ëpp na vraiment ëpp na ndax ba muy tàmbalee nee nañ le la woon mhm. te laata le deux xam nañ ne laata le deux feebar bi am na mais bi muy yëgse si ñun le 2 mars la woon bon ñu toogee naan dina agsi du agsi ñu yëgse ba mu nekk si téeméeri nit ak nàngam ñun war nañ tiit bu baax te xoolaat sunu bopp soppiwaat suñuy doxalin ndax téeméer ak nangam bu ñu nee moo fi faatu si feebar boo xamante ne am na noo mën a def ba am lu la si muccal bon defe naa ni ñun war nañu am na neen nuñ doxale ci jamono yoo xam ne ñu naan vaccin amul dara amul Ah. Euh, masques yi ñoo fi nekk ak gel yi. gel mhm. parce que fi may ñëwee foofu mooy si affaire boobu. Mhm. buñ nee am na feebar yoo xam ne amul garab. Mhm. mais nit ñi di ko moytu. te gisuñu feebar bi. dañ si ñaaw njort rek. waa ki ñaaw njort si feebar bi mu xamul. day dégg rek ñu ne am na moom dara leelu ko si. te bii ñun xam nañ ne am na ndax gis nañ. am na ñoo xam ne feebar yoo xam ne nit ñi gisuñu ko te amul garab. mais ñu ngi koy moytu mm-hmm. waaye bii nag ñun xam nañ ne feebar bi am na mm-hmm. amul garab waaye jox nañ ñu lu ñu may na moytoo ba feebar bi du ñu laal mm-hmm. bon defe naa ne bu ñu sàppee jàppee si loolu ñun ñu sant yàlla mën na ñu defal sutura yow yoof nga yoof nga bàyyeekoo nga nekk itam bàjjenu gox tey situation coronavirus bi ca diwaanu yoof tey boo ñu ko doon tënkal tey lan la man damay wax ne bu dee ni yoof ga ma dëkk la ci jamonoy coronavirus yi ñu toll damay wax ne ñun dañu war a dolli santaat yàlla ba muy tàmbalee na mu tàmbalee woon mm-hmm. ku nekk déggoon na ñun ñu fa dëkk gisoon nañ mm-hmm. metti woon na lool lool lool ci ban fànn tiis lool mm-hmm. ndax nga xëy benn bés ci benn bés ñaari fan ñu def tes génn mu nekk totalité biñ ñu jox ay quatre-vingt et quelque bon suñu demee bañ naan am na ak amul tey kenn la kay ñaar la hmm. bon dañuy dolli santaar yàlla hmm. ñu gëm ni lañ ñu waxoon la la xewoon hmm. mu ngi am wàññiku bu baax a baax a baax a baax ñaan yàlla nag tabaaraka wa taala mu deñ waxuma mu dej wàññeeku mais na fi deñ te deñ bi ñun ñoo ko fiy dindi waaye wax dëgg yàlla yoof toll woon na foo xam ne kenn mënu ko nettali si gémmiñ mbaa nga wax ko si bët nit ñi xam waaye lu ñu dund la lu ñu fekk la lu ñu gis la taal ko si suñuy loxo mu leer ñu nàññ ni midi mhm. bon bu ñu toogee ba tey naan toog nga une semaine gétoo kenn ku feebar mhm. ñun dañuy dolli santaat mais laata loolu naka ngeen doon préparer ba laata muy ñëw ak ba mu ñëwee waaw ba ba ngeen si génnee tey comme ni nga ko waxee ni mhm. na préparation boobu wala conscientisation boobu naka ngeen si jubloo woon laaj nga ma question bu ma neex parce que bi muy tàmbali feebar bi ñun ay bàjjenu gox lañ ay relais communautaire lañ que na gox am na lu ñu ko defaloon formation. am na lu mu jàng am na luñ ko formé. bañ sa tolloo ñun yërëm nañ suñu population. en tant que bàjjenu gox. ñu ne dañuy dugg si biir population bi li waxtaan ak waa population bi. parce que communauté bi ñoo mën a waxtaan ak communauté bi. bàjjenu gox yi ñoo mën a waxtaan ak communauté bi relais communautaire yi même chose. parce que santé ku nekk xam na ne ki jàng yor diplôme am na foo xam ne mënu fa yegg. ak fi bàjjenu gox mën a yegg. wala fi relais mën yàlla def nag ngir moom bi mu amee. Hmm. wax dëgg yàlla suñu district. wala district yi laay wax. Hmm. ñoom ñoo yërëmoon bàjjenu gox yi. Hmm. bañ ñu dugg ci programme du bagages yi. parce que ñu ngi doon calculer ñoom su fekkente ne amuñu li ñu war a aaroo ñun. bon soo duggee ci dëkk bi dafay doy waar. jox nañ leen aarukaay boobu. waa booba nag dañ ñu yërëmoon ñun. teewloo ñu ci suñuy kër. ngir ñu moytu feebar bi. waaye bi yàlla defee mbir mi di yëgse ni muy yëgsee ñu ne nag. fipp jot na jaadu na ñu toog ak suñuy kilifa wax ak ñoom ñu am kat dëkk yoo xam ne dañuy organiser ay plateforme ñun plateforme bu ñu for am yoof ay médecin organiser ko man lañ fa tànnoon comme bàjjanu gox ma ne nañu boole bàjjanu gox yépp ñu bokk ci plateforme bi bi yàlla defee loolu nag ñu xam ne am nañ résultat bu am solo ci li bàjjanu gox yi def ñu daal di boole ñépp ndax ba ñuy dem man bañ ma dugalee dama ne nañ dugal keneen dugal keneen muy ñetti responsable yi nga xamante ne ñu ngi fi wala quartier bu ne sa responsable ñu dugal la bi ñu bokkee si bagage yooyu yàlla mi dara teewul ñun ba ñu déparé xam nañ ni ñun bàjjana gox yi am nañ rôle bu ñu joué te bi ñu joué am na solo ñu dal ñu boole si bagage yi dem nag ba district am dugg si jox ñu lu ñu aaroo mairie bi jox ñu lu ñu aaroo ñu ànd ak ñoom nag liggéey liggéey bu mucc ayib. Mhm. ba nga xamante parce que quartier boo ko dë tëddee. ñu ne la quartier bi am na quatre-vingts personnes. Mhm. quartier bi am na trente personnes. justement sax bu ñu leen waxee ni quartier bi am na lim bi nga xam ni ñoom ñoo am coronavirus. waaw yéen naka ngeen di jubloo ci quartier boobu. tiit bay mën a wàcc ci terrain bi. tiit bañ ko waxee ñun bi ñuy woo boole ñu si bagage yi Yoff amoon na personne personnes. Mhm. ñetti quartier traditionnel ñoo amoon ku nekk benn nit. ku xool quartier traditionnel yi bu duggee ku nekk xam nga ne traditionnel quartier traditionnel yi benn kër rek di nga fa fekk ñaata personne hmm. plus de quarante si benn kër. Hmm. mais bi ñu joxee na ñetti quartier yi traditionnel yi am nañ ku nekk benn. Hmm. maire yi kilifa yëpp ndombi tànk yi daje si benn bërëb bu ñuy wax. APECSY médecin chef bi ñëw maire yi ñëw APECSY ñëw ndombi tànk yi ñëw ñu woo bàjjenu gox yi ñu toog bi ñu waxtaanee ñun dañ ne génn jot na biñ ne génn jot na yàlla def ñun ci suñu bopp ñu ne nag ñu may lu ñu aaroo gel masque ak bagage yooyu nu ngeen nar a def ñu ne ñu dugg ci kër yi def VAD quartier bi nga xamante ne am na totalité boobu képp kuy bàjjenu gox yoof dañ la woo nga ñëw ñëpp ñu daje si benn place waxtaan si suñu biir ban démarche lañ war a am pour dugg si quartier bi am na nooy dugg si quartier bi am na nooy dugg si kër yi am na nooy waxee nit ñi. ba tax yàlla mën nañu si defal sutura. bi ñu defee loolu nag affaire bi réussir vraiment réussir ñun xam nañ ne sax affaire boobu. ñun am nañ si am nañ si luñ si am. le lendemain ñu wax ni am na beneen quartier bi am. ñu dajalewaat bàjjenu gox yi si beneen. quartier boobu comme ni ñu def fii. Mhm. quartier yëpp. yoof dugg nañ si quartier yi. Mhm. def fa mobilisation kii VAD yu am solo. Mhm. jël suñuy total ak suñuy feuille de présence yëpp dajale. Mhm. jël résultat yi jox waa. kon yoof amatul amatul cas fu mu nekk nii. fi ñu toll tey defe naa am na benn. communautaire xaw ma démb. Mhm. parce que depuis le 2 mars. Mhm. chaque jour que jëfee damay bind li nga xamante ne moom lañ wax ci totalité yi. Mhm. tey nag comme ñu ngi woon ci affaire yu don yi ceeb yi. tey ma xëy ne naa nettoyé sama kër ma résultat yi jëluma ko. mais le 2 mars ba tey démb. maa ngi résultat yi ci sama kaye. waaw ah, tey ni ki tey am na benn cas. communautaire dégg naa ko ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci jàngoro bi. tey bilan tey bi bokk na ci. kon donc da ngeen fas yéene riposté waat. ci li nga xam ni génne euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo am jàngoro boobu ngeen mais sensibilisation bi ndax yomb na. sooy seet si ñun dafa mel ni yomb na si ñun. Mm-hmm. mais li yombul mooy. Mm-hmm. ña ngay waxal ndax dinañ la dégg. waaye dem si kër yi rek sensibiliser nit ñi. Hmm. wala association yi toog wala campus yi wala mbaari géej yi. Hmm. yomb na lool parce que cawartaay lañ si am pour def ko. ñañ fay fekk kay. Hmm. ñu ngay xalaat ndax li nga leen di wax. dinañ ko comprendre wala duñ ko. comprendre ngi dugg. waaye ba ñuy tàmbali ñun. bu ñu dee bi ñu ñëwee ñun. laata ñu agsi fu am campus wax nañ ñu ne fii dafa am campus. fu am toogukaay wax nañ ñu ne fii dafa am toogukaay maas buy natt si dëkk bi wax nañ ñu quartier bu nekk ñu tas nit ñi. Mm. ku nekk dem ça fait presque deux mois. Mm. depuis totalité boobu amoon Yoff. Mm. benn natt fonctionnaire Yoff. campus yi dindi nañ leen fa tout est normal mm-hmm. vraiment. donc léegi ngeen muy woy feebar bi di law. Mm-hmm. alors li nga xam ni moom moo jëm. ci Yoff xëy na mhm. boo ne euh, village yi nga xam ne kër tradition yi mhm. xëy na ni mais est-ce que tey mhm. ñooñu mënuñu nekk relais mooy maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bërëb yooyu comme ça sensibilisation gën a mën a yomb ndax impliqué leen si si ñu leen ni leen impliqué ñoom ñooñu dañuy jël ndombi tànk yi jaraaf yi imaam yi nday ji réew saltige personne ressource quartier bu ne xam nañ ña fa ne délégué quartier président kii yi mhm. association yi seen mhm. président yi mhm. seen comité de gestion yu quartier yi seen ASC président yi ñëpp la ñuy dajale def ak ñoom waxtaan quartier bu ne boo boolee kilifa yooyu ñu bokk toog ñun dañuy dem si ñoom waxtaan ak ñoom ne leen du ñun bàjjani gox yi wala relais yi rek ñoo war a liggéey parent bu ne si biir këram dafay nekk relais yaay bu ne si biir këram dafay nekk relais parce que papa yi suñ nekkee relais war a xëy dem uti ji lu ñu indi si kër yi yaay ya fay des nañu nekk relais si biir kër gi defa xale yi waxtaan ak jànq yi goro seen sët ndax ñooñu ñooy dëkk si kër gi su ko fee ñëpp dañuy nekk nit ñoo xamante ne mhm. ñooy ñi war a sensibiliser feebar bi ngeen nekkoon ci benn dynamique dynamique boo xam ne mhm. euh, ngeen dem ba presque kaa amatul mhm. mais beneen bi ñëwaat yéen kon tey ndaxam euh, da ngeen di toog rek jàpp ni léegi comme Uh, corona bi wàññeeku na bi si si Yoff dañuy croiser la bras wala tey ngeen di gën a accentuer wu ci sensibilisation bi tey lañ si gën a dem li waral ndax daje nañ ak kilifa yi ba noppi. Mhm. jamono bi ma toll nii di wax ak yow. Mhm. ñu ngi sensibiliser mag ñi nga xamante ne ñu ngi si quartier yi. nga xam mag ñi ñaata lañ. Mhm. si quartier bu ne. mag mu nekk dina am kuñ la dénk. kiñ lay dénk si biir kër gi lay doon ngir ñuy moytu xale yi di génn ngir bu ñu dellusee mën a wàll mag moomu su fekkee am nañ ñaanuñu yàlla ñu am mais yàlla dafa def jamono bi ñu toll. Hmm. ñun dañu war a góon a góor góor lu gën a sensibiliser. Hmm. li ko waral hmm. sunu maire. Abdoulaye Diouf Sarr. mooy ministre de la santé. bon jaadu na. quartier am fa mu dëkk goxam. Mhm. war na mën dox dox boo xamante ne. Mhm. ku nekk war na mën a roy si moom. Mhm. wax dëgg yàlla ni ñuy doxalee yow. ñun xaaruñu ku ñu fa fekk. ndax ba ñuy tàmbale xaaruñu woon ku ñu may max. xaaruñu woon ku ñu jox gel ñun ñoo créé loon suñu bopp la ñuy def. man ba may départ maa sensibiliser ba am trois cent quelque familles. et mille et quelques personnes. yuñ ku nekk am masque ku nekk am ñetti masque. te booba gisuma mairie gisuma état gisuma keneen. moo dal yeneen bàjjenu gox yi. gis nañ fi Ablaye Diouf Sarr. Mhm. wàccoon ñëw mhm. yoof ministre la. waaw itam maire la. wàcc ñëw yoof mhm. mel na ni. moom mu ñëwoon wàcc. moom mooy gën a am impact tey bu ko defee askan wi gën ko mën a dégg parce que fa la dëkk itam. ndax yéen jumtuwaay yi ngeen doon xaar ci moom tey mate na ko. def na ko yàlla rek laay seedeel sama kàddu. <laughs> Ablaye ñëw na yoof ñëwate yoof ñëwate yoof parce que dañ am place boo xamante bu tudd kër si mhm. lépp lu ñuy def si yoof kër la goo xam ne fa la ñuy daje mhm. ñun xale yi dañ fay daje mhm. mag ñi di fa daje ndombi tànk yi di fa daje autorité yi di fi daje fuñ siy dem en tant que ministre de la santé. Mhm. bu mënul ñëw dina yóbbu yoon ni nit ku ko teewal. Mhm. médecin chef bi district ouest Abdou Karim Diop. Mhm. en tant que médecin chef. moom it dafay bokk ci programme boobu ak ñoom jaata ñun ñëpp ñu toggandook ñoom. ku am dinañ xam naka la ak nan la ak nan la ñu war a aaroo. wax dëgg yàlla ñoom ñoo ñu may doole. ba tax li ñu jàpp dañ ciy jàpp ba kër baa muy dañ. mbokk yi 88 la 628 84 84. wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg itam bokk ci waxtaan bi tey. Mhm. ngeen doon sensibiliser tey ba. Mhm. ab kuréel wala mun nañ ko wax sax ONG. Mhm. ñëw fekk si leen. mu di EMAD. mu ñëw dooleel leen. ci seen euh, diwaan bi nga xam ni fa ngeen nekk. tey ñoom. ban appréciation nga am ginnaaw ba ñu ñëwee fekk leen. ci mhm. combat bi nga xam ne yéen yéen a ngi ci. dañuy santaat yàlla dañuy santaat yàlla. Mhm. bi emaat ñëwee. fekk si ñu ñun waa Yoff muy commune bu Yoff mhm. district ouest. avec vingt quelques quartiers. yi bokk si bagage yooyu. bi emaat ñëwee. laata emaat ñëw ak programme Covid. yàlla dafa def. ñun dañ doon liggéey ak EMAD si mhm. programme mu TB ak bagage yooyu mhm. ak paludisme yi ak mhm. sida dañ doon liggéey ak ñoom sa fait des années ñuy liggéey ak ñoom yàlla def covid bi ñëw bi covid bi ñëw ñun ñu ngi woon si programme TB tuberculose bi programme bi ñëwee ñu ne da ngeen di arrêté pogas programme tuberculose ndax programme tib covid bi ñu foog ne lañ waroon liggéey fee moom la ñuy remplacer lii waaye bi ñu yegsee ñoom waa amaat def jataay mhm. ñun dañ sentir ni ñoom dañ ñëw pour jàppale waa Yoff mhm. jàppale waa Yoff weesuwul la jàll fee jàll na ci TV bi mhm. ndax xam nañ bu baax ni TV ak programme emaat dañu sentir ni ñun xam nañ ñaati nit lañuy am ñaati nit lañuy defanteel ñan ñoo fi feebar ak ñan ñoo si wér yàlla la ak programme emaat bi yàlla defee ti kii bii ñëw Covid bi muy lu am solo lu yoof gépp sentir seen bopp yàlla xam na ne yoof gépp dañ sentir seen bopp si programme EMAD bi te bien que yeggagul waaye sa biir waxtaan yi rek si quartier yi ñoom dañ sentir ne ñu ngi am loo xam ne bu yëgsee mu doon njariñ si ñoom parce que laata ñu départ ak moom ñun dañu dem si quartier yi dajeeg imam délégué de quartier bàjjenu gox euh, comité de gestion ASC ne leen mbooleem kuy kilifa si quartier bi hmm. mu ngeen ko manee mu toog ñun ñu ñëw def ak yéen waxtaan si programme u EMAD hmm. dafay gën a rafet hmm. ñu may ñu ko tam sept quartiers traditionnels ya fa ne bokk naa sa ña teew si set quartiers yi yëpp def ak ñoom waxtaan yi ñu rafetlu ñu rafetlu parce que EMAD bi mu ñëwee li mu ñu sant ñu defal ko dañu defaat sensibilisation boo xam ne sans pour autant ñu am kit yi ñoom dañ ne ñoom dañ sentir seen bopp si EMAD ba ñu déparé ci sida ak tuberculose ak palu mhm. bon covid bi ñoom dinañ ci jàpp luñ man gën a jàppale mhm. waa population bi te bu emaat ñëwee dañ ci gën a am doole kon su ma la mooy emaat dafa ñëw fekk si yéen ci euh, période bi ngeen tolloon ci sensibilisation vraiment dafa ñëw fekk si ñu nag dooleel ñu mhm. parce que moom na mu bëggee woon ñu san ñu doxale ka ni mu bëggee ñu doxale ka programme Covid bi. Mhm. ak nañ doon doxale programme kivi Covid bi. Mhm. dafa dafa am tuuti changement. parce que bu njëkkoon ñun bu ñuy def bi ñu defee programme boobu dañ daan dem si kër yi sensibiliser wax ak ñoom. Mhm. def ak ñoom la ñuy def may leen lañ leen di may dem. mais bii ñu daaw ñu taaj paayi ak personne ressources yooyu ak ñooñu. waxtaan ak ñoom ba pare doog a démarrer. te benn quartier bi nit ku fa dëkk yaa daan waxtaan ak ñoom. mais Emar bi mu ñëwee. quartier yi dañ boole quartier bu nekk ñu tànn fa ñafane mhm. ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom te daaw ko defe noonu xam nañ ne doole la ak émaat mu mel ni mhm. laata loolu itam mhm. dañ leen tàggat wax leen yéen yoon ngeen di aw ngir mën a def euh, sensibilisation bi ci covid bi waaw ñoom waa émaat wax dëgg yàlla defal nañu ko ndax soo tànnee émaat liggéey na ak soixante quartier liggéey ak soixante quartier yooyu defal na chaque quartier dix personnes formation pour xamal leen lan mooy Covid. Mhm. naka la ñu war demee si bagage Covid. Mhm. nan la Covid mel. Mhm. nan la na ñuy xamee ne Covid bi lii la. nan la ñuy fajoo Covid. nan la ñuy aaroo Covid. nan la ñu war a waxante ak nit ñi ba Covid du la laal. yooyu yëpp defal nañ ñu formation boo xam ne bu am solo la. parce que soixante quartiers yi nga defal waxtaan. am si six cent relais. defe naa ne bu duggee si biir àdduna bi. dinañ yegg fi ñu bëgg si niñ ko waxee. Mhm. ñu def loolu tegal ñu nag nit ñoo xamante ne lu mu gàtt gàtt di nga wax ak quatre cent quatre mille cinq cent personnes. yoo xam ne da nga war a waxante ak ñoom. Mhm. def ak ñoom loo xamante ne si liñ ñu sant la. ba mhm. pare nag may leen kit sanitaire yoo xamante ne moom lañ war a employé. waaye loolu gënu si neex. parce que à part quatre mille cinq cent yi. wax nga plus de huit mille personnes. parce que bi ñuy sensibiliser. tànnuñu rek personnes yi ñu sant waxtaan ak ñoom hmm. dañ waxtaan ak population bi yëpp hmm. hmm. moo tax am nañ plus de quatre mille cinq cent personnes yooyu bu dee suñu gox ñun noonu la ñu liggéeyee ñëpp lañ waxal amul ma sàmba amul ma dem amul ku fi dëkk amul ku fi dëkkul képp koo xam ne yaa ngi si gox bi dañuy waxtaan ak yow si li nga xamante ne loolu la EMAD bëgg ak ni mu ko bëgg tey askan wi ñu ngi euh, santir loolu ndax impact bi yéen a koy gis bu baax a baax a baax a baax parce que li tax ma xam ne li ñuy wax ak ñoom am na njëriñ parce que imaginel yow demoo si bërëb. Mhm. nga toog sa kër nit woo la téléphone ne ba ngay wax nangam. dafa am lu ma fàtte noo ko waxee woon. Mhm. bon mel na ne nit kooku am na lu mu jàppoon si yow bi ngay waxante ak moom. Mhm. loolu moo waral ñu xam ni ñun li ñuy wax ak ñoom. am kon mu mel ni yéen kon fees ngeen dellu ci terrain bi daal. moo am. bu dee yoof rek ñañ fa taan mhm. ñay dugg ñay génn mhm. wallahi azim man man naa waat ne mhm. lépp luñ ñu si laaj ak lu ñu si def defloo dinañ ko def man xam naa loolu te euh, mais euh, lu tax ñu nemmeeku kon relâchement solin masque beeg wala askan wi ñenn ñoo ci réeree mbir ne mënuñu takk masque am wala relâchement bi lu ko waral man dëgg su ma déggee ku ne manoo takk masque man ñooñu laa gën a sawar ki ne mënul takk masque parce ki mënul takk masque am na nooy waxee ak moom mais mun nga xam ni am na ñoo xam ne mënuñu takk masque. man mënuma ko gëm sax peut hmm. xam nañ li tax. Hmm. parce que kii am asthmatique. Hmm. xam na day fàtt. am na façon bu muy takkee masque. am na façon masque bu muy takk. du n'importe quel masque ngay jël. bon lu ñuy wax ak ñoom la ba ñu xam. ne war nañ mën a takk masque. parce que amee asma boobu. war a takk masque takkoo ko nga ne danga nga amee feebar bi feebar bi laal la yóbbu la sil xafaar mhm. wala mu teg la beneen coono takk masque bi moo gën a sedd mhm. bon am na nooy wax ak moom ba xam mu xam lan moo waral mu war a takk masque mhm. am na façon masque tamit bu mu war a takk parce que ku nekk façon bi nga war a jël waaye ku am bi bi gën moo gën waaye bi ngay takk mu indi la beneen problème dañ lay wax ne jëlal bii nga bañ a def bii am na façon bu ñuy wax yéen yéen a ngi leen koy wax si parce que da ngay dajee koo xamante ne takkul masque. Mhm. nga wax ko yow masque est ce que xam nga pour lan la. Mhm. parce que laata nga takkaloo ko masque foog mu xam lan moo waral mu takk masque. Mhm. faw mu xam lu tax. feebar bi la. wala coobareem la. wala poussière la wala lan la. question la boo koy laaj. mu am nu mu la tontoo yow nga leeral ko li tax mu war a takk masque bi. ak nan la ko war a takke ak ban façon la war a takk. léegi lu tax lu ñu seetlu bàyyeeku bi ci askan wi. man da jàpp ne li tax ñu ma seetlu. gars yi dañ bàyyeeku. Mhm. li ñu ne nañ dund ak feebar bi. wala dañ ko interprétation lañ ko sooy dund ak feebar. Mhm. na fekk nga xam feebar bi ngay dund ban la. parce que boo xamee li ngay dund di nga xam ni ngay aaroo waaye li ngay dund soo ko xamul. Mhm. doo xam nooy aaroo te doo xam naka la ak nan la bon faw ñuy dox di wax. parce que man damay wax na ñun bàjjen gox yi sunu lool dox la ak wax. dox ak wax yéen koy jëfee itam. dox la ak wax. Mhm. man ku ma laaj sa profession dama lay wax ne dox la ak wax man xaw ma ban métier laa am. Mhm. dox la ak wax comme dox la ak wax nag nañ ko jëfee. lu ñuy jëfe la. te képp koo xamante ne nu gox nga. Mhm. bañ lay dugal si liggéey bi dañ la wax ne da ngay liggéey te yàlla rek a tax. bon kuy liggéey te yàlla tax gëmal ne da ngay liggéey te yàlla tax. bul xaar luñ la fa jox bul xaar luñ la fa wax mm. di nga daje ku la saaga di nga daje ku la wax wax bu neexul mm. bu boobaa dañuy gëm ne rek mm. yàllaa fi ne dinañu fekk fi ñu jëm est-ce que yéen itam ni ngeen di jegee ñi nga xam ne ñoom ñoo am euh, feebar yi nekkul nekku leen itam ay nit yu xaw a exposé si bagage yi mm-hmm. mën na ne mën na ne parce que imaginer quartier bi am quarante personnes yoo am maladie bi mm-hmm. yow nga dugg si biir <laughs> quartier bi yaa ngi dugg si biir quartier bi yàlla rek la siy muccal waaye si kaw yàllaa ma siy muccal jooju nag. Mhm. day fekk ma aaru. man su ma aaro mhm. dugg si biir quartier bi. Mhm. xam naa ne kii am na. wala ñaaw naa njort parce que ay façon la. ki nga ñaaw njort la ki am. ki ñuy naan moom laa ak du moom. ki ñu yaakaar ne moom am na lu fa nekk. xamoo kan la. parce que bi ngay dugg xamuloo kanax kan moo am. wax dëgg yàlla parce que kii am duñ ko bàyyi foofa muy traîner. bon ki am. Mhm. te xamuñu kan la yaa ngi wax ak moom yaa ngi laalanteeg moom mais xamoo kan la. Mhm. man jour bi ñuy jàpp nit ñooñu si quartier ñaari quartier yooyu mbéngeen nga paru mhm. gan gu jóge foofa mu ngi sama kër toog di ma xaar. yàgg naa fekkuma fa mu dem bët set ñu ne ñoom yóbbu nañ leen dañ am sama waa kër ñëpp ne bu la fa fekkoon di am. parce que mhm. sa façon toogin la ak sa façon jëfin ba ma ñëwee dama jël samay matuwaay mhm. laal samay bunt laal toogukaay yi lépp ma désinfecté que la ma la ma la ma am mhm. daal di def ak ñoom waaye yàllaa ngi ñuy suturaal yoof dégg fa benn bàjjanu gox bu am feebar bi te nous sommes cinquante deux personnes bàjjanu gox yoof yéen naka ngeen di liggéeyee tey comme bu euh, bu ñu joxee bilan bi da ngeen wootante seen biir comme ça ngeen xool yan tànk ngeen war a dox wala yan fan ngeen war a dem tey pour sensibiliser wala bu nu waxee ni euh, yoof am na kaa ngeen di soog a jug wala déedéet ñun tout le temps ñu ngi liggéey comme tey ñu ne kaa am na mais du ñu wax ban quartier la kaa bi am mhm. da ngay woo responsable bi mhm. ne est-ce que dégg ngeen résultat tey. parce que am nañ benn suñu kilifa. Mhm. ku tudd Kumba Dieng. Mhm. yàlla def na mu am cawartaay woote. Mhm. ak wax ak dox ak def. lépp loo xam ne xew na si bàjjen gox yi moom dina woote. woo ñëpp leeral ñëpp ñu daje si place boo xam ne. ñun bàjjen gox yi ñoo fay daje. hôpital ba suñ fa daje ñu waxtaan si suñu biir. nangam xew na nangam ten wala mu yor téléphone am woo la téléphone. ku mel ni man moom. du ma nëbb dara. Mm-hmm. du ma nëbb benn quartier. parce que li tax du ñëpp ñoo am bàmmeelu biir. du ñëpp lañ war a wax li xew. Mm-hmm. waaye da ngay wax ne rek feebar am na palaas sàngam. si mm-hmm. yoof du ñu ne benn karce la. du ñu ne benn kër la. du ñu ne benn nit la. dañ naan rek feebar bi gis nañ ko tey am na ko am yoof léegi dañ bëgg suba. nañ daje def palaas sàngam. du ñu wax ne quartier bii la quartier bii la pour bañ ñu xam ne sax quartier bii la. Mhm. dañ naan ñetti quartier la ñuy def tey. Mhm. bu ñu nee ñetti quartier la ñuy def def quartier wëlbatiku dem. Mhm. kenn du xam ban quartier la malade boobu am. su ko fee day nekk sutura si suñu biir. loolu am lenn loo xam ne dafi ñëw mu di stigmatisation bi. waaw ah. euh, nekkul lu yombalul leen liggéey bi yàlla def na nag ku réglé ku ne dina am nu mu doxale te doo sonn. su ne man dama am feebar bi. yow yaa ngi may moytu di ma moytu koñ bi dugg bi géer kër yi kenn duggatul sa kër kenn defatul mm-hmm. man am na nit ñoo xam ne mënuñu jox defal seen bopp lool mm-hmm. ñun bañ ko amee si suñu côté dañ ko doxal sunu bopp man en tant que bàjjenu ko fa ma dëkk mm-hmm. dama oo koñ bi ña nga xamante ne ñoo fa nekk ay jeunes yu mën a am caaj liggéey ak dëb ñëw ma ne nañ waxtaan gis nga buñ duggee palaas sàngam ñooy dem waxtaana ñoo ñu fa ne parce que comme amoon na fa. ñun ñooy dem waxtaan ak ñoom. Hmm. su ko fee ñu fexe nuñ ko bàyyi ko moom mu am courage yu mën a génnaat. Hmm. mën a defaat ak njabootam. Hmm. mais bi ñu yàlla defalee loolu. amu fa benn problème okay. parce que ñun ñëpp dañ àndaat nekk benn comme nii tey ma def ko exprès doyaw ma la dara seetu ma la bëgguma si yow dara mais doxalin wax ma jéggalu si kàddu gi ni ma ko waxee ma dem sa kër ñëw na nañ dem palaas sàngam dafa am lu ma la soxla bu ma nit ñi gisee ma ànd ak yow dal di ñeme dañ naan bàjjenu gox ndey laa gis nañ ko tey mu ànd ak diw mais kii nit la demain su ma la gisee nga wax man lan moo am si moom wér na il faut ñun ñoo leen di jàppale te ba boobaa dara du si am mhm. dara du si am donc comme na yoof mel mhm. est-ce que yéen xëy na yeneen bërëb yi meluñu ko waaw ah. mais est-ce que itam jotul ñoom ñu woo leen ah. ñu revenir à la raison quand parce que jàngoro bi mhm. euh, bawul ku kenn rek déedéet ñëpp euh, ku ku ku am keek ku ñàkk keek la ah. yamale parce am na ku mel ni man ku mel ni Koumba Dieng ku mel ni Ngone Sarr mm. nekk nañ ñoo xamante ne dara dina xew ñu bëgg am changement sa fa beneen quartier mm-hmm. dinañ la woo na la dañ bëgg nga ñëw suñu quartier defal ñu fi waxtaan mm. nga ñëw ñu woote ñoom kilifa yi ñoo lay woo délégué de quartier bi imam bi président commité de gestion président comité ASC bi mm. ñu woo la dañ bëgg nga ñëw defal ñu waxtaan si nangam mais soo demee la ngay def waxtaan yow xam nga ne nàngam ji moo tax ñu woo la. Mhm. bu boobaa di nga def waxtaan mhm. ba changement am day am te ñoom duñ si am benn kii boobu. Mhm. léegi ñu daal di jël mbokk moomu ci ligne bi salaamaaleykum. tey salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waa sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar. waa tur bi ak foo ñuy woowee. man maa ngi maa ngi tudd Alpha Ba. Alpha Ba. ma leen di woowee Dakar Plateau. Alpha. Mhm. di membre euh, ONG EMAD. Mhm. waaw nekk dans le ci communautaire bi ak le président Abdou Khad. Mhm. mu yar ñu tette ñu si kanamam. teg ñu si yoon. pour ñu ànd moom ci liggéey bi. alors naka mu naka liggéey bi foofu ca diwaanu Plateau. ah. naka liggéey bi ci diwaanu Plateau. waaw liggéey bi door na bu yàgg. Mhm. ñu ngi ci kawam ñu ngi ñu ngi li ñu waroon def yëpp commencé nañ ko depuis les formations. Mhm. avec les jeunes. Mhm. ak les bàjjenu gox ak euh, représentant EMAD les représentants de de de de de plan international. ñoom ñu seq projet bi. bon depuis lors ça avance très bien. ñu ngi nekk seulement ñu ngi si recensement yi et tout ça. ndax euh, jot ngeen am ay euh, résultats probants ci euh, diwaanu Dakar Plateau ndax message bi mi ngi jàll. waaw tu sais Dakar Plateau comme ni mu tëddee dafa nekk zone boo xam ne dafa xaw a xaw a fragile par rapport ak pandémie bi parce que. Mhm. li fi dugg ci nit par jour rek. Mhm. tolloo si million ak lu topp. Mhm. donc mu nekk zone boo xam ne que ne. dama def fi investir bu baax a baax a baax pour ñu mën a xeex mbas mi. parce que suñ ko def suñ ko comme ni ni ko ni ko a waxaat doon waxee temps yële na leen. Mhm. Dakar Plateau su ko nit ñi tiimee gis immeuble dañ naan fii seen nickel dara amu fi. Ah. ay borom borom koom ñoo fi nekk te or que fii nii boo soo soo ñëwee soo soo wàccee ci suuf dugg ci suuf dox ak tànk. Hmm. dugg ci roq yi ñu dugal ci ay roq. Hmm. ne fii ci Dakar Plateau bokk. Hmm. doo ko gëm. en plein capital à quelques quinze minutes du palais du palais présidentiel donc dafa nekk zone boo xam ne que ne c' est tellement dense ba que ne fu mu nii mbas mi. di fi émat investir sax defe sax investir seen zone yi. léegi ndax message bi askan wi ñoom itam ñu ngi koy jëlal seen bopp. allo oui allo. ndax message askan wi ñu ngi jël message bi seen bopp. waaw message message bi message bi mi ngi mi ngi mi ngi jàll parce que fuy ruq. Mhm. ak fuy fuy ruq ruqaat dugg nañ fa. ok xale yi dugg nañ fa ñu ngi sensibiliser. Mhm. ñu ngi waxtaan ak nit ñi. Mhm. te nit ñi aussi ils sont conscients que ne. feebar bi mu ngi fi. parce que Dakar Plateau fu mu nekk nii chaque jour soo toog doo toog benn fan wala ñaari fan lu dégg ne am na ay cas Dakar Plateau. waaw mu nekk lu métti nag. Mhm. te te ni mu waroon ni ni ni ñu waroon jàppale population yi aussi taxawaay bi dafa des. Mhm. ci benn côté. Mhm. parce que les les sooy xool. sooy xool emat kese doyul. Mhm. si lu mel ni Dakar Plateau pour couvrir ko donc mhm. il fallait que ay yeneen ay leneen loxo yeneen loxo dugg ci mhm. pour ñu mun ci avancer pour liggéey bi a gën a dox mais bon malheureusement seetaan dafa xaw a bari nag oh, oh, surtout si côté autorité yi jàppal jàppal jàppal jàpp jàpp si liggéey bi dara dara daal parce que su fekkee même masque bu trois cent francs sax boo sax def débrouiller pour génn sax pour jox ko say population pose problème ndax mairie bi moo tax plan ils sont venus à temps pour mun a temps. Mm-hmm. pour mën a attaquer mbas parce que mbas mi du affaire u xaalis du affaire xaalis ak mm-hmm. ceeb ak suukar. Mm-hmm. affaire prévention la. waay. dugal xeet si bopp nit ñi que ne feebar bi mu fi. nii ngeen war a def pour mun ci mucc. wala boog ngeen mun leen leen mun ci rëcc. mais malheureusement dañuy teg affaire bi affaire kaw xaalis ak lekk ak naan. te balaa lekk ak naan santé dafa war a am ba pare. wax donc xale yi nag moo tax suñu uh-huh. jigéen boo fa toog noonu laay boobu noonu. Uh-huh. maa ngi koy déglu depuis émission bi i a parfaitement raison. parce que ñoom Yoff aussi dafa nekk dafa boo xam tamit dafa xaw sensible. Hmm. te ñoom dëgg-dëgg ñoom wax ñoom Adja yoon ni Fall yoon ni Mbaye ñoom ñëpp ñu ngi taxaw ñu ngi taxaw taxawaay bu dëgër. Hmm. pour xeex mbas mi tout récemment rek def naa fa tournée jaar fa pour xool leen. Hmm. mais gis naa liggéey bi ñu ngi koy doxalee te ñu ngi ko teg ci fulla ak fayda te ñu ngi wax ak nit pour sensibiliser leen pour ñu xool ndax la ñu mën a euh, muccee ci mbas mi. ok ok waaw alhamdulilah. ok kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax Alpha Ba. waa kay ñu ngi leen jaajëfal jërëjëf waay. Mm-hmm. alors kon mu mel ni euh, askan wi ñu ngi commencé miin euh, message bi. Mm-hmm. Euh, maa ngi la ko doon wax sànq. ci stigmatisation bi. li li ngeen def yoof est-ce que itam ñeneen mënuñu ko xool daal di ko def seen bërëb. mën na nekk mën na nekk parce que li tax mën na nekk am na liggéey yoo xamante ne ku nekk façon ba ngay liggéey ak nang nga koy liggéey. Mm-hmm. ku si nekk na ngay waxe bokkul ak sa moroom ni muy waxe hmm. bien que maak yow mën nañ bokk benn formation hmm. waaye man na may déggee ba waxe ka hmm. ak keneen ni muy déggee ba waxe ka mën na oro parce que ku nekk na ngay jàppe waaw yàlla def na nag yoof wax yàlla ña fa nekk macha allah macha allah neex nañoo waaw neex nañ waxal parce que neex a waxal ji mooy yow dafa am nit ñoo xamante ne dañuy am rusayl si yow yow dëkkoo si quartier mais dangay gis boroom quartier bi na la. Hmm. dama bëgg nga ñëw defal ma lii bàjjen bi waroon def fii hmm. parce que ñoom am nañ si yow complexe benn. Hmm. bon dafay nekk loo xamante ne si nit ki lay doon. pour nga am si liggéey boobu mu jaar fi nga ko bëgg. te loolu wax dëgg yàlla am na yow ndax xale yi itam yéen a ngi leen di bàyyi xel ci coronavirus bi. surtout. surtout parce que xale yi li tax ñu bàyyi xel si ñoom. xale bi di génn di dem. moo mën a mën na am feebar bi indi ko si biir kër parce que mag mi mën a moytu. mënul dal xale xale bi nga bàyyi te ndax xale yi dañ ne bu ñu jàngi mhm. bon buñ ne bu ñu jàngi rek génn kër gi waratu leen mhm. bay wëndeelu si mbedd yi bon xale yi dafay bokk si liggéey boo xamante ne ñun dañ war a basé wu si ñoom mhm. gis nga bu ñu daan yóbbu bi ñu déparé si bagage yi di joxe masque yi bu ñuy ñawlu ay masque dafa am xale yoo xamante ne yu tuuti damay wax ne bu ñu jën bindal xale bu ñu jën defaral xale yi masque yi bu ñu ñëwee damay wax yi nekk si kër gi xale yi boobu moomuñu biti xale yii ngeen yor mhm. moomu ñu biti mhm. parce que xale boo xamante ne bu génnee biti xamul ki muy joxanteel loxo mhm. xamul ki muy joxanteel xaalis xamul la muy def sa bitig ba xamul fu muy jàpp xamul fu muy laal bon yéen mag ñi yéen ay tey xale yi parce que xale yi dafa bari si xale yoo xamante ne bu ñu génnee la leen di dal duñ comprendre surtout xale boo xamante ne day laaj ñaan xaalis day teg loxaam fu mu warul teg yooyu yëpp su fekkente ne am na bon suñu téyee xale yi si kër gi mhm. yéen mag ñi lu ngeen war a yoon ne demal seen bopp mhm. bu boobaa bu yàlla defee la ñuy moytu mhm. buñ ko moytoo dafay jaar fi ñu ko bëgg mais xale yi daal bëgguñu ñuy génn yéen a def seen waar bu baaxoon ci ñoom xale yi itam si ñoom bu baax a baax a baax a baax a parce que am nañ ay programme yoo xamante ne dafay bokk si xale yi EMAD am na programme yu muy doxal yoo xamante ne xale yi dañ si war di yëngu ñu ngi koy waaj te xam naa ne nee naa la EMAD duggam yoof ren. Mhm. si Covid bi mhm. ñun sentir nañ ne EMAD après Covid. yàlla mën na nañu defal sutul liñ soxla dinañ ko am si ñoom. Mhm. soobee ci ci jàppandalu EMAD mel na ni ñoom seen action quand même. Euh, lu am solo la quand ci askan bi. torop ah. torop torop parce que laata Covid bi nee naa la ñun dañ gësoon sunu bopp si EMAD. bien parce que am na maladie yoo xamante ne si EMAD lañ xamee maladie yooyu. parce que xam bi du ne xamoon nañ ko ni waaye ñikk am si suñu biir waxtaan ak suñuy jëf si sensibilisation bi. Mhm. si lañ xam ne ñi ko am te bon programme mu amaat bi lañ koy sante bon bu liy mhm. ñëwee. Mhm. ñun xam nañ ne yokkute lay doon. si li nga xamante ne tàmbali nañ. laata ñuy dem ci yeneen euh, sujet yi. mais mu am benn ponk bu am solo boo xam ne yaa ngi ko doon junj sànq. ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo di wan lool kenn dematul tey. ci li nga xam ne moom moo jëm ci hôpital yi mhm. euh, ci hôpitaux yi di moins mhm. euh, li waral li ni mel ndax yéen euh, ci am na message bi nga xam ni mhm. bëgg ngeen ko lancer lan la bu baax bu baax parce que jigéen ñi jigéenu wérul dafa nekk ñaari pàcc yow jigéen ji ëmb ak la nga ëmb muy ñaar yoo xamante ne mu ngi ajowu si yow si kàntanu yàlla tabaraka wa li mu namm si yow jaam munu si leen mhm. ndax lépp moom la mooy toggal toggam bu ñor jot yàkk jotee mu yàkkal ko boppam mhm. bon kenn mënu si leen waaye dafa nekk jamono joo xamante ne covid bi mhm. dafa indi musiba si loolu ci ci nan ban li mu indi mooy bu fekkente ne comme district yi poste de santé yi li ëmb si district yi centre de santé yi ña nga xamante ne ñoo doon liggéey lépp si mbirum wér gu yaram jigéeni weerul dégg ne feebar bi dafa am mu ragal ba tax dootul dem kër hôpital mhm. bon dafay indi musiba mhm. soo seetee fu mel nee ni ñun fi ñu dëkk mhm. da ngay gis jigéenu wéru bu waroon dem rendez-vous ne man duma dem rendez-vous ndax covid dafa am bu dee ni ko waroon vacciner doomam mu ne man duma dem hôpital ndax dama covid dafa am waree ko waroon am feebar boo xamante ne da nga feebar feebar booy jël ay garab chaque instant wala ngay dem rendez-vous nga ne duma dem ndax dafa am corona. Mhm. waaw corona ak ay bagage am yow sa feebar ak côté mhm. waa soo demulee dem si sa feebar est-ce doo am ñaari problème. Mhm. parce que problème mu Covid bu ñëwee. yow demuloo problème bi la jot mu ngi nekk si yow feebar bi. faji jiwuloo ko. ñaanal yàlla ko Covid bañ la laal. ndax ñaari feebar yi duñ ànd. covid moom feebar bu noble la moom moo du dëkkaa benn feebar si boppam mbon ku nit ku mel noonu may xamal nit ñi ne bu dee ci district la yi ñu dëkkanteel. amul benn district bu ñuy hospitaliser ko am Covid. amul district yëpp yow mën nga feebar sa sa kër xamoo lu la jot. Hmm. nga ñëw si hôpital bi fa ngay fajoo yow ki nga toogal xamoo ko xamula xamoo loo am xamoo moom lu mu am. Hmm. ngeen toog mais fi ngay dugg si médecin bi foofu la ñuy xamee ne yow li la jot lii la. Hmm. waaw boo duggee si biir médecin bi seet la. bindal la la mu lay bindal ñaaw na njort si li nga ko wax ne moo la dal si hmm. signes yi parce que ay signes la feebar bi am bien léegi signes yooyu buñ si ñaawee njort docteur na la defal test def nangam mais su yàlla nammee loolu ñuy ragal nekk si yow bu boobaat hôpital ba dootoo fa amoo fa baat hmm. dootoo fa ne hmm. bon ñëpp ñoo xamante ne dañ doon hôpital man femme enceinte dama am ñaayam si ñoom bu baax a baax a baax a parce que soo seetee ñu ne am na les signes de danger de la grossesse mm. les signes de danger de l'accouchement les signes de danger de postpartum muy ñett yoo xamante ni si jigéeni wéru ji lay déparé ba ba muy am doom mm-hmm. léegi soo nee yooyu yëpp bu arrivé yow doo dem fa nga war a dem mm-hmm. yàlla mën naa def leneen xew si te loolu bëgguñu kon jot na askan wi xoolal seen bopp itam képp koo xamante ni jigéen nga mm. di nàmpal di boot mm-hmm. di ëmb ñette yii képp ku ko si nekk. Hmm. lépp lu la wax sa district ba nga bokk wala post ba wala centre ba demal nga defe ko na nga koy def ndax benn place bokkul ak sa morom. dañ hmm. fay def. Hmm. ku nekk ak sa côté bon ku nekk mën na dem faju na mu doon fajoo. ku doon jëli garab mën nga dem jëli sa garab. ku doon pikiiru man nga dem pikiiru ku doon naan doom man nga dem naan doom. ku war a visite mën nga dem ku war a écho mën nga dem ku war a def leneen mën nga def leneen. vaccination xale yi sooy seet. Mhm. am na wàccuwaay boo xamante ne yaay yi war a yóbbu seen doom lépp ñoom la. nee naa leen amul benn feebar boo xamante ne fañ lay faje yaag beneen feebar yéen a fay daje. Mm. ku nekk feebar bala dal fa nga koy faje mm. te yow rek lay doon ak ñi mel ni yow. bon mhm. nañuy dem bu baax kër docteur. Mhm. te def li ñu war a def. mais est-ce que tamit euh, ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi wala ñu ŋànk paj mi. jotul woon itam ñu changer seen doxalin ci wàllum communication ñu jël mbokk moomu. salaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. Mm, sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. jàng ziar bu baax. tur bi tur bi ak foo ñuy woowee. waaw man maa ngi tudd Cheikh Omar Gueye maa ngi dëkk Dakar Plateau. waaw Cheikh Omar bisimilah. naka yaram bi. ñu ngi sant bu baax. waaw waaw di di di kontaan rek suñu mbéy Sambalaay moomu. Mm-hmm. vraiment suñu kontaan si moom trop trop trop trop. moom mm-hmm. euh, suñu su doon dañuy am ni gën ay activistes de la santé. Mm-hmm. moom si lay bokk. a ndax loxoom dugg si. bàjjenu mhm. gox la. ñu mhm. ngi si centre bi ñu ngi si ñu ngi dugg ñu génn. Mhm. te vraiment loolu lu am importance tout en plus nag. que instant bi ñu toll nii loolu dafa war dafa gën a yokku. a ndax vraiment Covid bi doy na waar trop. waaw man damay xaw tiit de quoi. ah bon. <laughs> ah damay de quoi. kaay ñu ngi woon ne agréé ci tug bi. tug bi dépassé nañ ko ça veut dire que cas yi gën a yokk hmm. léegi ay trois quatre décès par jour ngay dégg ay vingt deux vingt cinq cas communautaires par jour hmm. bu paree nag mesures yi ñu wàññi ko hmm. loolu a indiwaat mesures yi wala ah a yi wala mais mesures yi dañ ko war a indi ànd ko accompagnement yi nga xam ne population ak yu mel ni frontières am ñaar tey frontières yi ñu koy ibbi non wala ñu koy ubbi biir Dakar biir Sénégal mën nañu xool ñu négocier alal nit ñi. Mm. te frontière yi dañ ko war a tëj. Mm. pour man école yi war nañu ko du waat. Mm. conscience la vérité. mais dafa doy waat daal doo comprendre ndax xale yu ndaw yi dañuy feebar dara di leen dal. Mm-hmm. ay cas asymptomatique la ñuy nekk. Mm-hmm. ñu jëlee ko seen école ba. Mm-hmm. ñu indi ko seen waa kër seen yaay wala seen maam. mu dal leen bu ñu faatu. donc loolu dafa doy waat. ok te école yi pour ko ubbi frontière ko ubbi. pour man. loolu vraiment loolu moom man ñu ngi koy ñaan président su mu nee mhm. dellu si ay mesures am daal. Mhm. na ci dellu. Mhm. su le mu confiné Dakar carrément. ak Touba carrément parce que les deux grandes villes yoo xamante ni ñu ëpp ay cas. ñun ñu ngi confiné carrément. pour un mois pour deux mois affaire yi xeex ko ba ñu ñu jeex. doy na war daal su ma la gis. nit ñi ils sont inconscients. ok inconscients. léegi nag laa jógee sànni que maa ngi ay policiers yu jàpp ay yëpp. sol ni ma. waaw mais ça ne sert à rien. solo yo leen. Hmm. ñu fay 3000 francs wala 2000 francs nga bàyyi la ñu naan suba ñu ngi salaam mag ça ne sert à rien. donc information moo war a dal gouvernement bi communiquer beaucoup de communication. pour hmm. man hmm. même les émissions inutiles yi am ci télé instant bi dañoo war a arrêté lépp. lépp la communication sur le Covid. vraiment. ok nañu si jàppale quoi parce que ñun vraiment sonal nañu. da ngay xeex mel ni affaire bi day gën a yokku. finalement c'est un ok waaw a loolu message bi noonu ñu jërë jërëjëf euh, Cheikh Abdou Khadre Gaye di ko gërëm bu baax ci duggam ak intervention am na solo ñàkkul ni autorité yi ñu ngi dégg loolu daf ñuy may. Mm-hmm. ñu xuus ci li nga xam ne moom moo jëm ci njàng mekk njàngale mi ubbi nañ école yi. Mm-hmm. si kàddu gu njëkk yow na ko nga gisee ubbite bi ndax jàpp nga ni mesure ya ca war. Mm-hmm. danañ ko mate. waa maa ngi jërëjëf waat di santaat yàlla. man école yi wax dëgg yàlla dama si ñaaw njort li tax ma ñaaw si njort. Mhm. man pour man bi ñuy ubbi école yi. Mhm. mbooleem kuy jàngale. Mhm. mbooleem kuy jàng. dañ leen waroon defal formation. xamal leen tàggat leen. tàggat leen bu baax si li nga xamante ne mooy feebar bi. parce que xale bi ngay woo mu dem jàngi. dañuy joxe tolluwaayu xale yi nga xam ne ñoo war a jàngi. ki def CM2 pour examen. jëm kaw. bon ñooñu ku leen defal formation dinañ xam li ñuy wax. Hmm. bon waroon nañ leen defal formation. Hmm. parce que dëkk bu nekk ñooñu rek ñoo fay jàngi bon manoon lañ leen defal formation. Hmm. ñay jàngale ji tam. ñu defal leen formation bien que jàng nañ. waaye ki jàng ba yeey ay kayitam. su xamul signes yeeg feebar bi naka la ak nan la. moo jàngul dara ñoo yem. bon man li ma gis. mooy man su ma nekkoon am baat si loolu. xale yi duñ jàngi. wala bu ñuy jàngi naa leen defal formation laata ñu dem. jox leen nag matuwaay yu am solo. yéen a ngi wàcc ci école gox yi. ñun yoof mhm. école ya ñu jege ku si nekk dem nga waxtaan ak ña fa ne. am na si quartier boo xamante ne mbooleem lu ñuy employé si école boobu. Mhm. école boobu jot nañ ko. ñu jël mbokk moom ci ah. ligne bi. salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Ah, kooku bisimilah. man la benn mbokk ndey laay sama sama benn jigéenu baax na ndey man la jaa. Tafa Tafa na nga def. Ndeye Laye na nga def. maa ngi sant yàlla ma naan rek dégg nga wax ma ni eh, kii sama jigéen may wax. Ah, loolu am na solo merci jërëjëf merci tonton Dia. Mhm. présentateur ki nga toogal nii. jàmbaar la de. Ah. merci beaucoup merci moom diplôme moom mooy waxal dox. war na lay wutal diplôme nag parce que ñii ay ñoom dañu nekk société bi. nekk communauté bi. dëgg la Mm-hmm. kii moom depuis xaw ma vingt ans maa ngi may liggéey boobu mi ngi nekk si terrain bi. la dëgg la dëgg la ay jàmbaar la merci merci jërëjëf. wax dëgg yàlla nag ñu ngi si tuberculose bi. ñu ngi si mm-hmm. malnutrition bi ñu ngi si. Mm-hmm. Covid bi. ñii mhm. daal vraiment. <laughs> Mhm. état bi il faut il faut état bi defal leen daal. dëgg yàlla ngay <laughs> a merci merci. merci tonton Tafa am am diine ñeme kamir. Mhm. looloo ma war. kii foo ko gis macha allah. looloo ma war. maa ngi sant yàlla bu wér a wér. alhamdulilah ba wax dëgg la merci beaucoup da nga baax rek. <laughs> tons da nga baax rek. merci merci. du ma yàq seen émission danga euh, ko. maa ngi leen nuyu di nuyu présentateur bi. merci beaucoup jërëjëf ñu ngi lay fay bu baax a baax. merci merci. merci. Mhm. donc mhm. mel na ni. Mhm. di gërëm jaajëfal kooku nga xam ni moo mm. génn léegi léegi itam mm-hmm. mu nekkoon lu am solo kon ce qui veut dire que mm-hmm. li nga xam ni moom moo jëm ci euh, gox bi émission bi lu ko tax a jub moo di mm-hmm. tey conscientiser askan wi ci gox yeeg goxaan yi ci li nga xam ni tey moom moo jëm ci jàngoro coronavirus bi ak suñu partenaire boobu di EMAD kon ba tax na école yi yéen euh, yéen a ngi fay wàcc kon su ma la déggee bu baax di waaw suñu déggee suñu jàppee ne ah, waa EMAD ñun seen programme EMAD bi. Mhm. dañuy yabal si école yi. Mhm. ñu xam ñaata école moo nekk si. ñu jël mbokk moom ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. allo allo oui ñu ngi lay dégg bu baax salaamaaleykum. asalaamaaleykum Bemba. maaleykum salaam kooku mooy Abdou Khadir Gaye. Mhm. waaw Abdou Khadir Gaye ci oote sànq Cheikh Omar la. waaw Cheikh Omar la. waaw maa ngi leen di suivre vraiment avec beaucoup de bonheur de plaisir. merci. waaw ndax émission bi am na solo trop ndax ki ngeen dalal tey. Mm-hmm. muy Ndeye Samba Laye. Mm-hmm. jërëjëf. Mm-hmm. vraiment bàjjenu gox bu engagé la. nekk ci terrain bi nag ci def liggéey bu rafet rafet rafet rafet rafet. ñu koy remercier di ko féliciter. Euh, di leen xamal ne loolu ngeen wax. ci Covid bi moom lañu ñu war taxawee dëggantaan. waaw moom la ñu war taxawee. ndax sensibilisation bi war nañ ko yokk. ba tey jii. population yi def ci am ñu bëri ñu nekk en situation de déni soo leen mm-hmm. waxee ñi ne mbir mi amul mm-hmm. mbir mi amul mm-hmm. ndax teguma ci bët mbir mi amul ndax gisuma ku mu ku mu dal parce que nag nit la yàlla bindee façon ba nga xamante ne dafa naan toujours rek l'enfer c'est les autres lii dina dal ku ne ba mu des man ah. situation boobu lañu ñu war renverser pour ñu xam ne mbir mi am na am na ñu mu lor am na kër yu mu faagaagal. am na ñu mu rey. mbas la ba nga xamante ne mu ngi fi. te dañu war góorgóorlu mu jóge fi. jóge fi dëgg donc loolu nag eh, mm-hmm. moo tax yéen journaliste yi aussi position bi nga xamante ne moom ngeen ci am. Mm-hmm. position bu am solo la en tout cas ñun. Mm-hmm. ñu ngi remercier bu baax acteurs communautaires yi nekk ci terrain bi yëpp ñu engagé nañ ci combat bi. les leaders yi nga xamante ne formé nañ leen ñu nekk ci gox yi di dox di wax. dafay mhm. ñu leen dërëb lépp ci seen gëm-gëm lañ ko teg. di remercier aussi suñu partenaire muy plan international. Mhm. Mhm. waaw ndaxte suñu jàppale woon xëy na mbir mi duñ ko mën a doxee duñ ko war doxee. wante suñu warugar la. ñu ngi koy dox. en tout cas nous disons merci à tout le monde. merci beaucoup à Ndeye Samba Laye. merci merci Mouhamed dafa am. Euh, am waaw moo tax mënul mhm. teewee émission bi. mais xam naa la mhm. prochaine fois il mhm. sera là. incha di nuyu relais yëpp. di nuyu ko mel ni May Ngiraan. mu nekk acteur ba nga xamante ne mu ngi ci terrain bi. Euh, di jàppale district sud. ci xeex bi. jàppale bu am solo. parce que loolu su ko def loon xëy na nit ko am engagement comme moom pour def ko. dina jafe loolu. yombul sax ci émission yi di ñëw. bés moom Mbaye Ngiraan moomu. dina ñëw. Euh, mhm. Mouhamed Gueye dina jaar. incha allah euh, incha allah yónni bay ak ñoom xujja. Mhm. te yoof ñoom it ñëpp dinañu am opportunité. Mhm. jaar parce que yéen a jàppale te jàppale bi jeexagul. incha allah dañuy ànd rek ba keroog ñuy mbas corona. incha allah boo ko wax. incha allah waaw mu ne corona mbas la. waaw wante nit ñi. xamuñu lan mooy mbas. ñu ñoom mm. eh, ñiy bëri làmb. ñoo ko xam. mbas mooy nga jàkkaarloog sa adversaire mm. xeexaax moom ba daan ko du la laal doo ko laal. Mm-hmm. mu ne noonu la ñu war def coronavirus. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ànd. aar aaru. mbas corona incha allah. mu nekk am solo jërëjëf. merci merci Abdou Khadir Gaye ñu sant ko gërëm ko. mu <laughs> uh-huh. nekk partenaire bu am solo. alors tey ñu ngi ci njeextali émission bi waaye. mënuñu woon bañ a tudd ceeb bi. Mm-hmm. commission boobu nga bokk tey est-ce que jàppoon ni tey séddale bi dafa xaw a yéex. waaw wax dëgg yàlla nag bu dee ni ceeb rek la. Mm-hmm. bi état joxe. waaw bi état joxe. moo yeex. <laughs> waaye yéen sant nañ yàlla bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. bu dee ni yoof ga ma dëkk. ñun santaat nañ yàlla tabaaraka wa taala. parce que koor la commencé woon waxi ceeb. waaye wallaahi azim. yoof amul kenn ku fa jotul ceeb ci koor gi. kër yëpp parce que xale yi dëkk Yoff mm-hmm. ak ñi yàlla wërsëgale dara mm-hmm. quartier bu ne am nga loo jox say kilifa ya nekk sa quartier bi ñu jënd ko ndimmal jox ko waa quartier yi mm-hmm. moom ñun suñuy ceeb yewoon sa koor ga jeex na sa mille neuf cent ajag-jag <laughs> wax dëgg yàlla état moom la bosam di déw ko ñëw mairie ba nga jógee yàggul mairie yàggul waaye état day doog a ñëw démb la ñuy doog a commencé tey mooy suñu deuxième jour bon xam nga lañ fañ ko séente woon mhm. weesu na waaye man dama jàpp mhm. sama diggante sama borom mhm. dama ne li yàlla def si covid bi dafa am lu ma si seetlu solidarité daf si am bu baax a baax a baax a baax ndax ku nëbbu woon si sa am am feeñ nga si jamonoy covid bi ku daawul joxe si ba nga sa tolloo joxe nga si jamonoy covid bon dafa mel ni loolu lañ doon xaar comme yàlla def na nag affaire bi yëg see nii dama ne état bii doog a ñëw. Mhm. lépp luy jàngoroy Covid yàlla na àndandoo ko waaxu mi ceeb bi yëgsee. Mhm. ànd ak moom dem yoonam. Mhm. man foofu rek laa ko teg. ndax lu jot yomb. te bi mu jotee. lañ siy doog a jot. da nga jàpp ne dina mate. man jàpp naa ne dina mate. li tax ma jàpp ne dina mate. du nit ku nekk lañ war a jox. waaye kër gu nekk lañ war a jox. Mhm. bon damay jàpp ne dina mate. Mhm. parce que bu fekkee kër gi fukki nit ñoo fi dëkk. Mhm. ñu joxe loo xamante ni si kër gi la. bon kër gi am na. amul ku ko ñamul si biir kër gi. bon du ñëpp lañ war a jox. waaye kër yi lañ war a jox. man lu foofu laa jàpp. ñu ngi ci njeextalu émission bi. tey kàdd gu mujj gi tey lan la di gërëm tamit ñi nga xam ne dugg nañ. joxe seen xalaat ci li maa dañ lay jox kàddu gu mujj gi tey. nga tàggatoo rek tey lan nga nu mun a wax tey ci li nga xam ni. Hmm. wala wan message ngay lancé ci askan wi ci li nga xam ne nag moom moo jëm ci coronavirus bi. gannaaw bu ñu santee yàlla tabaaraka wa hmm. di gërëm plan international. Hmm. di gërëm waa EMAD. président Abdou Khadir Gueye. di leen gërëm yéen ñi nga xamante ni yéen nekk fii si rajo réew mi. wax dëgg yàlla message bi may joxe. gannaaw bu ñu santee yàlla ba pare damay gërëm sama borom kër. bu baax a baax a baax a baax a baax. di ko ñaanal yàlla tabaraka wa taala yàlla na fekk lépp tatal di gërëm samay waajur ak mbooleem kuy waajur mhm. di ñaanal sama waajur bu góor fa mu tëdd yàlla na doon fa koy gënal mhm. bi mu jógee fii mhm. di ñaan nag lépp loo xamante ne ñu ngi koy dox yàlla na yàlla nangul ñu suñuy ñaan waaye nit ñi nañu changer comportement di raxasu am na façon raxasin di takk masque am na façon buñ koy takke moytu jigéeyoo bi nuyunte ak loxo di wax moytu nañuy palaas ya ñuy dem ku amul soxla soo xamante ne je tartaan na mm-hmm. nga toog si sa biir kër mm-hmm. ñun ñi nga xam ne yàlla nattoo nañu nag dox ak wax mm-hmm. ñu ñaanal ñu yàlla rek yàlla musal ñu si jàngoro ji ndax yàlla rek ñu si mën a mottali li des waaye ñun def nañ li ñu man di ñaanal suñu ministre yal na am ndam si li nga xamante ne moom la sumba Abdoulaye Diouf Sarr yal na yàlla dolli ko sutura jàngoro ji yal na doon juy set wecc te buy set na fekk mu nekk si loxaam lépp jaare si loxaam maire ga mu nekk sa fa mu nekk def na la man sa fa mu dëkk Mm-hmm. Abdou Naar ma topp si moom def na la mu man def na la mu manu mm-hmm. kilifa ya fa ne mm-hmm. Baye Ablaye Alassane yàlla na fi yàgg te teraanga ji mu génne ngir Covid mu ñëw si biir dëkk bi yoof gépp Mm-hmm. wax dëgg yàlla dañuy dolli santaat yàlla mm-hmm. di ñaan bu baax sunu mm-hmm. sanga cawlaay jigéen la ñuy ay jigéen waaye macha allah moom tam emaat tamit ñëw jàpp la mu def kenn mënu si dara waaye nag emaat moo baatul record bi raawante boo gis roccee nga sax emaat dafa ñëw nag rocci moo waral li fi xew-xew na yàlla dolli leen sutura mottali seen yéene musal ñu si lépp luy am ndog lépp lu nu nar a faxastal ba ñu fàtte yàlla yal yàlla pakastal loola ba mu fàtte ñu wax dëgg yàlla ñu ngi def ñu di la ñaanal yàlla tabaaraka wa taala mhm. nee nañ nit mën nañu ko tere lépp ba mu des nettali mhm. te ba may doog a dugg nanga ma recevoir mhm. si laa ne man fi ma jëm war naa faa ñeme wax dëgg yàlla président woo na ma wax ma la mu may wax leeralu ma dara daf ma ne rek soo demee si moom dina def nii dina def nii waaye sant naa yàlla bi ma ñëwee ba nga ma teeroo laa ne dalal naa sama xel ndax ki ma teeru nam ma teeroo dina tax ma ñeme fa ma jëm yal yàlla dolli leen ñu fekkee lépp te tal ka mhm. musal ñu si lépp luy am ndog mhm. yàlla bu si dara fekk luy safaan mhm. yàlla bu si dara fekk luy gaar yàlla doon yokkute fekke tal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal jërëjëf covid bi yàlla na dem incha allah rabbi sant ko gërëm ko sant ko gërëm ko bu baax a baax mbokk yi itam di leen joxe dig daje ba beneen dimanche ak beneen invité fii ci émission gox bi incha